jërë ngeen jëf internet yu Dakar live Albourakh TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu am mbégte mbokk yi tey xam ngeen ne ñu ngi fii ci Medinatu Salaam leer na rek bi ñu leen nuyoo ki ngeen jàkkaar lool ngeen war a xam fi ñu nekk ndax euh, Omaro mu Cheikh Béthio dootu ko présenté ci àdduna bi ndax noonu la mel li ma am lépp li muy wax Cheikh Béthio Thioune la Cheikh Béthio nag xalifaam tey di Serigne Saliou Thioune buntam moom muy Serigne Seydina ñu fekk fii ci Medinatu Salaam 17 avril la waroon bis bi xam ngeen ko daje ba ca ca ca bu yàgg diggante Cheikh beejo ak sëriñ Saliou moom la ñuy màggal ba tey ñu fekk fi nag suñu xarit suñu mbokk taalibe di doom ci kër gi di taalibe ñu bëgg a waxtaan rek ci bisu cant gi Omar ñi ngi lay nuyu di am mbégte bu baax di la fekk fii ci Medinatu Salaam. jërëjëf jërëjëf Baye Mbaye yàlla na yàlla guddal sa fan te resey bu baax baax maa ngi am kontaante bu baax tey rafetlu jotaay bi. di ci am mbégte bu baax a baax waaye damay tàmbalee ci nuyu suma grand frère yi fi toog ku ci mel ni Sall Niang ak Moustapha Thiam ak suma nijaay aada xasaayit nga xam ne kàll macha allah suma ay kilifa lañu ci lii may yëngu tey ci wàllu communication traditionnelle yàlla dogal ñu jiituma ci waaye keroog ba ma ñëwee it ñu xalal ma yoon wi wan ma fi may jaar ba tey ma man cee doon li ma ci doon lépp am ci li ma ci am lépp waaye dem ci it aussi fi ma ci dem yëpp. kon bu ñu ma fekkee ci suma kër Serigne Serigne Cheikh Béthio jaamu Serigne rawatina fii kër Seydina Serigne Saliou Thioune danaa leen warmaal jox leen seen wàccuwaay te ñaanal leen jàmm Baye Mbaye ma kontaan ci yow nag lool dina la ñaanal sa jàmm yàgg di gërëm maas bu baax a baax suma rak suma xarit mais di gërëm moo fils aîné suma taaw suma doom yaay borom Alburax TV loo dunu doyul sama doom ji dina wax nag tey moom waxtaan wi di 17 avril la ndax ci plateau laa jóge léegi ci 2STV doon ko fa waxtaane ci tàmbali ba ci njeexal maa yoroon waxtaan bi animateurs yi wër ma di question may tontu ba nii ma fa jógee tàbbi fi yéen laa njëkk waxal tey moom ci sëriñ bi sama yaram da cee tàng jër lu ci laaj waaye may tontu barke sëñ Bamba. laaj bu njëkk bi mooy doon ñu bari dinañ ko xam waaye xëy na gone yi mujjee juddu sabab bi di 17 avril diggante Cheikh Béthio ak kii sëriñ Saliou. ndeysaan sabab bi ab daja la ab daja boo xam ne ma nga xewee ci atum cooroon bu ngeen nee atum cooroon nag mooy atum baykat yi at bi nga xam ne ci la baykat yi di ji lii nga xam ne tey tubaar tubaarkàlla macha allah bu nu ko jiwee mu mën a meññ ba ñu mën koo jariñoo jërëjëf mbay jërëjëf mbay ñu ngi ziyaare ñu mën koo ji ba mën a meññ ba mën a doonu njariñ ci nawet ndax ku ne xam na ne nawet eh, mooy mooy résultat nawet mooy résultat waaye atum cooroon ci la ñuy investir li nga xam ne ci nawet wi ci la résultat yi di feeñ caat woowu tombek at wi Serigne fallu Mbacke génne àddina at bi stop ndax ku ne xam na ne Serigne Fallou mi ngi génne àddina en 1945 bi mu génne àddina en 1945 en 1946 ci la cheikh bi dajeek sëriñ Saliou Mbacke ca toolu baayam ca taset sëriñ Saliou mu nga jóge daaray got di dem kër gu ñuy wax kër Baye Isma Diouf waaye bi mu rombee ak witir wi ci toolu baayam tubarkàlla macha allah ci la ñu làcce ne ah, wutir bi kat ah sang bi ñëw na xaaral ma siyaare. jërëjëf ah ndeysaan fi ñuy waxe fi ñuy waxee la Serigne Saliou ndigal ah, Serigne Seydina. Serigne Seydina. ah eh, waaw waaw tey de Allemagne la jóge. Ah, ah, ah, maa ngi nii rek maa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah bi yaa ngi ñu fekk ñuy waxtaan ak sa taalibe bi. sëñ Sa. mu ñëw doon leeral ci diggam ak sëriñ bi ak yow fii ñu nekk. tey rek ñu am la nii euh, euh, dunu duñu sañ a àggale ak moom <laughs> ah, dañuy ñëw nuyu la ziar la tatagal la ndokkeel la ci bis bu tedd bii ñu ñëw waa ah, kay jërëjëf maa ngi lay ziar di leen bëggee di bëggee wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñi ngi seetaan euh, wax dëgg yàlla jumtukaay yi ak site internet yi ngeen yor tey ñu ñëw ci 17 avril bu ñu waxee 17 avril xam ne Serigne Cheikh Béthio gisee mag Serigne Saliou la woon ca taset na nu ko waxee boo ñu doon dikkalaat ci bis bi ak tey fi mu yegg si bi mu leen fi bàyyi. waaw bis bi day euh, wax naa ko day ak cant. te yàlla moom moo wax ne ku sant mu dolli la. kon boo ci nekkee forcément da ngay yokk looloo waral moom mi nga xam ne tey moo waral cant gi ndax bis bi mooy bis bi mu daje woon ak sëriñ Saliou moom nag nee na bi mu tàmbalee sant Serigne Saliou sax dafa peese ndawal. kon xam nga ni ku peese woon ndawal dem ba yegsi fi mu yegsi ci ci ay nakk mhm. kooku ak cantam nangu nañ ko loolu nag moo waral saa su ne saa yoo ñëwee rek da ngay gis ay yokkute di ci am euh, lu ñu mënoon daaw bu ren ñëwee ñu romb ko looloo tax wax dëgg yàlla euh, ren jii moom foo xëy na njort lool waaw sant nañ ci bu baax a baax baax waaw. xanaa koy mujjee def ak moom rek kàddu yu leen ci dénkoon ngir saxal cant gi. waaw moom nag jàpp naa ni 2018 2019 sax def na ko ndax boobu ma yàlla dogal na mi ngi woon Bordeaux ma nekk ndowoon fa ak moom maa ngi fàttaliku ñu woowee ngir ñu war a woo taalibe yi ngir wax leen ñu ñëw fekk ko foofu ci Bordeaux ci këram gi foofu dana ma bu ñu ñëwee damaa bëgg bernde yi mat bëgguma kenn di fi ñëw di xiif ci biir wax ji sax maa ngi ne ba ci biir ñuy calculer ma naan ko ah moom day mel na ni lii ñuy calculer est-ce que ëppul mënu ma bu buñu ko yemale fenn ndax ak cant la na ma fii ku fi ñëw war na fa fekk ay bernde ba xam ne ñun sunub sëriñ lañuy sant kon moom fu mu yóbbu woon cant gi kawe na euh, tey nag di bis bokk na ci boobaak léegi bi mooy juróomeelu yoon bi yaakaar naa wala ñeenteelu yoon bi ñu koy def te gisuñu ko ci ci ci ci Zahir waaye moom dafa am lum ñu jàngal lim ñu jàngal mooy li ñuy topp ci sëriñ tubaa du jëm ndax sëriñ tubaa du lu ñuy topp ci jëmm ndax nit boo ko toppee topp support bii mu yor day xëy loola màgget te bu màggetee day dee waaye ñun li ñuy topp ci Serigne Touba loolu du jëmm loolu mbirum Serigne tubaa la kon moom loolu la ñu jàngal ba tax bu ñu ko gisul dinañ ko namm noonu ñu koy nammee ndax Cheikh Béthio moom ñëpp ko bëgg euh, ñëpp ko daan bëggee ngir waxtaan wi noonu mu daan neexee te di saf xorom ba ñëpp bëgg ko kon ku ko gisul di ko namm waaye terewul nag na ñu ko digale woon ci jëf noonu lañ koy defee te jàpp naa ni bu nu yegg si waat bu yegg si waatoo ni duñ defaraat suñu toogaay mhm. ndax on a la conscience tranquille mooy lépp li ñu waroon ci cant googu mënu jàngaloon daal ñoo ngi ci mhm. rek bala ñu laa bàyyi anecdote boo ñuy wax ci moom bu bis bi masaana ñëw li ngeen di gis ci moom ak lu muy yëg waa bis bi moom bu masaana ñëw moom day mel ni màggal Sëriñ Tuubaa gi da ngay gis këram yi day commencé di ko peinturaat commencé changer climatiseur yi changer meuble yi ndax ak cant boo koy def sa lépp day mat sant yàlla daan ndiru tiitaru kuy sant yàlla bu la yàlla wu rek mën ngaa jàpp ne kuy tiitaru la donc boo koy def bu comprendre boo comprendrewul mën nga ni kii kat day wane wu fekk na boobu daa jublu sant yàlla moo waral lépp lu mu daan def bu mësaan a jot da ngay gis mu ne ci àll di soññee jënd ay nag jënd yi bernde na nit ñi lekk na nit ñi naan na nit ñi nekk ci jàmm sëñ Béthio en résumé li bëggoon mooy njariñul jàmm yi mooy képp ku mu gis dina fexe nga nekk ci jàmm fexe jariñu loolu nag wax dëgg yàlla moom moom moom moom la ñuy fàttaliku ci moom te di ko noosoo saa su ne nag waaw. sa diggante jeeg rek. moom xam na ne. waaw Omar ah, yëngu bi ni koy gisee bari na. ci image yi ak fu mu mën a ne waaye bu ñu egsee gis ko ci yow. rek nii leen koy fekkee mu mel ni xarum yar waneeg taalibe ak Omar ni na ko xamee. waaw Omar <laughs> moom day koo xam ni. Mhm. moom sëriñ bi moo ñu boole. muy koo xam ne <clears throat> euh, dañoo yàgg ma nag moom. léeg-léeg mu génn ci tele bi. gaa ñi woo ma ah sa waa ji. waaw moom sa waa ji nangam ak nangam. waaye nit la koo xam ne. xol bi moo moo moo moo demee noonu. day nit koo xam ni ku mu àndal rek. wala ci lu mu ne. waaw baax na c'est bon mën ngeen taxaw nii mën ngeen taxaw nii mën ngeen taxaw nii mën ngeen taxaw nii. Touré Touré ay lii de bëgg naa ci am Touré. jërëjëf Touré bisimilah nañu may waa kër Bassirou Ka yi ñëw may leen loon noonu ñoo leen may leen loon noonu yéen ñaan rek seen Touré ngeen toogee nii damay ñëw ñëw